gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel ñaan yàlla defal ñu yàlla defal ñu jaami àdduna ak jaami àllaxira sutura ñu ngi waxtaane benn xewal ci xewalu yàlla yu màgg yi subhaanahu yi nga xam ni da koy wàccee ci jaamam yi bi subhaanahu wa taala mu doon xewal woo xam ni jaam yi dañ ko soxla Euh, lépp luy dund soxla ko moo xam doomu aadama la moo xam gàncax la moo xam bàyyi ma la moo xam tamit suuf si ci boppam daal di koy soxla nekk ni daal di koy soxla nga xam ni lu vital la ci doomu aadama nga xam ni euh, mënta ñàkk ci dund doomu aadama te loolu ñu bëgg a waxtaanee mbokk jullit yi mooy ndox ndox nag dafa bokk ci xéwal yi màgg yi yàlla subhaanahu wa taala defal jaam yi ak réew yi loolu tax bokk na ci liy wane xéwal gi mu nekk xéwal ak tamit li mu liy wane màgg gi màgg moom ndox mooy aj gi ci yàlla aj ak dund muy dund mboolem luy mbindeef luy dund yàlla mi ngi ko aj ci ndox te ci la ci ndox la ko yàlla sàkkee ak dundam yàlla nga ko aj ci ndox loo tax borom bi wax ni wa jaalna min al maai kulla cheyin xay lépp lu ne yàlla ne ñu ngi ko dundalee ci ndox te loolu dafay wane xewal gu màgg gi ci yàlla def dund doo ci la yàlla sàkkee cosaani mbindeef yi booy xool li ci ëpp ndox la muy maniw bi nga xam ne ci la doomu aadama jógee ak tamit mbooleem luy e, mbindeef cosaanam booy xool toq ndox la wala toq maniw la ci lay soqe ko bu ko defee nag nit bu demee ba dund ba juddu boo xoolee li ëpp ci yaramam tamit ndox lay doon Euh, noonu tamit boo xoolee nit lépp lu muy jëfandikoo muy bàyyi may muy tamit gàncax yi ndox ci boppam da cay nekk kon lépp loo xam ne nit ki ci boppam mi ngi koy jëfandikoo ngir dund ndox la ndox mi ngi ci beneen bi tamit lépp loo xam ni doomu aadama mi ngi koy dundee moo xam bàyyi ma la moo xam gàncax la moo xam leneen la loole li koy dundal mooy ndox kon da gis ni ndox mooy source euh, vie mbooleem lu yàlla bind te mu am ruu ci nekk ci kaw suuf rawatina doomu aadama kon loolu xewal la bu màgg nga xam ne suñu njariñu àdduna yu bari yàlla nga ko aj ci ndox kon loolu xewal la bu mag wu yàlla defal moom borom bi subhaanahu wa taala euh, nga xam ni suuf si li koy dundal mooy ndox euh, noonu tamit jamono joo xam ni ndox wàccul ci kaw suuf suuf si ci boppam dafay dee euh, noonu tamit booy xool yaramu doomu aadama ndox moo koy dundal noonu tamit ndox mooy dundal xelu doomu aadama kon loolu xewal la mag bu yàlla defal doomu aadama muy ndox muy mu doon suuf su dund doomu aadama ñaareelu mbir bi wane màggaayu ndox mooy ndox dafa bokk ci màndarga yi yërmande yàlla ak tamit dafa bokk ci yi nga xam ni dafay feeñal yërmande yàlla ci doomu aadama yi ak tamit ci mbindeef yi ak ci ko suuf loolu tax borom bi subhaanahu wa taala di wax ni وهو الذي ينزل غيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد borom bi subhanahu wa taala di wax ni moom mooy wàcce ndox mi nga xam ni mooy xettali doomu aadama yi te mooy alxayth alxayth mooy ndox mi xettali bindeef yi bokkul ak matar matar nag mooy taw rek muy wàcc amma nag xayth nag mooy taw boo xam ne bu ñëwee day xettali doomu aadama yi amma matar mun na doon ñëw nag njariñ buy xettali mbindeef yi mën na doon ñëw nekk musiba ak balaa boo xam ne dafay ñëw noonu tamit àndaale ak ay nattu ak ay jafe-jafe ci dundu doomu aadama yi wante loolu yëpp xikma bu sore sore ak bu bu xóot a xóot la ci yàlla jublu moom borom bi subhaanahu wa taala borom bi loo tax bu wàccee ndox mi ni fanzuru ila athari rahmatillahi kayfa yuxyi l arda baada mawtiha fan xool leen njeexeetu yërmande yàlla ni muy dundalee suuf gannaaw ba mu deewee moom suuf noonu loolu kon dafay wane ni ndox ci boppam ci yërmande yàlla la wàcc la bokk moom moom ndox euh, noonu tamit ndox ci boppam yàlla mi ngi ko euh, def muy misaal wàccu ndox ci kaw suuf yàlla mi ngi ko def misaal ci euh, wàccu dékki ga ëllëg ci kaw bàmmeelu doomu aadama yi maanaam ndox ni muy wàccee ci kaw suuf dundal suuf nga xam ne suuf su jamono joo xam ne ndox wàcc na ci da ngay gis suuf si commencé yëngatu commencé di fudd commencé di xar commencé tamit euh, di euh, ŋàyyeeku ngir gàncax yi sax nga xam ni suuf si commencé dundaat ba nga xam ne day mel ni dañ koy wodduwaat ak ay gàncax mu rafet lool taar taaru lool dund commencé feeñ ci kaw suuf si insectes yi commencé noonu tamit euh, dund commencé gannaaw ba suuf si deewee noonu tamit la borom bi subhaanahu di dekkalee jaam yi bu yowmal qiyaame nga xam ni taw mooy wàcc ci bàmmeel yi ba jëmm yi commencé saxaat noonu tamit ruuf ruu yi daal ci roofuwaat bàmmeel yi tijjeeku doomu aadama yi daal di jug eh, sax mel ni dañuy ni ñuy ni suuf si di ngàyyee jamono ju gàncax yi di jug noonu ñuy ibbeekoo gàncax yi génn noonu la suuf si di ibbeekoo jamono ju doomu aadama yi di dekki ëllëg yowmal qiyaama kon loolu dafa misaal la bu mag boo xam ni yàlla da ko def ci ndox moo ngi donc kéemaan ba yàlla def ci ndox noonu tamit ndox ci boppam bokk na ci xéwal yi nga xam ni jar naa sant yàlla subhanahu wa taala comme ni ko borom bi subhanahu wa taala di fàttalee do doomu aadama yi afa raaytum alladi tashrabun a antum anzaltumuhu min al muzni am nahnu al munzilun law nashaau jaalnahu ujaajan fala tashkurun yàlla di wax uh, doomu aadama yi ni leen wax leen ma ndox mi ngeen ni naan te muy jóge ci kaw ndax yéen a koy wàccee wala ñun ñoo koy wàccee ñun yàlla ñun yàlla ñoo koy wàccee yàlla ni bu ñu soobal ñu def ko mu doon ndox mu wex xat ak xorom kon ñoo ko def mu neex ngeen mën koo lekk ngeen mën koo naan mu mun a jàll ndox moomu di wàcc ci kaw di daw ci ci dex yi di daw ci dex yi di dugg ci biir suuf si uh, ñu koy génne ci teen yéeg ak sew ne yeeg ak bëtu ndox yee yooyu ndox moom nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo nga xam ne traficu ndox bi ak tamit branchement yi daanaka ci lay amee euh, ndox moomu nga xam ne yàlla da ko neexal borom bi subhaanahu wa taala nee na moo ko wàccee te bu ko neexoon tamit gannaaw ba ko wàccee moom mi dafa mu def ko ni ndoxu géej wi ba kenn du ko mën a jëfandikoo kon loolu xéwal ñu yàlla defal ñu war ko cee sant moom borom bi subhaanahu wa taala wante ndox moomu euh, yàlla di wàcce ko suuf bokk na ci yi nga xam ni yàlla da koy tere wàcc mooy bàkkaaru jaam yi loolu tamit lu jar bàyyi xel la mooy bekkoor yi am ak euh, sécheresse yi am ak tamit ñàkk ndox yi am léeg-léeg mu ngi delluwaat ci bàkkaar yi nga xam ni doomu aadama yi dañ koy jëf ak jëf yu ñaaw yi ñuy jëf ak tamit euh, jëf yu bon yi ñuy jëf ci kaw suuf euh, moo xam yi ñuy jëfalante seen diggante seen diggante ak seen diggante seen borom bàkkaar yooyu ci boppam bu demee ba fës borom bi subhanahu wa taala mën na xañ doomu aadama yi ndoxum moom borom bi subhanahu wa taala ngir delloo si leenul bu du woon bàyyi may nag yàlla du wàcce ndox loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax naan zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyudiqahum bad alladi amilu laallahum yarjiun yàqu-yàqu yi feeñ ci kaw suuf ak jéeri ji yàlla ne li nit ñi fàggu ci seen loxo moo ko sabab léeg-léeg nag yàlla wàccee ci lenn ci ay xeetu musib ak ci lañ li ñuy def ci ay bàkkaar ngir doomu aadama yi yëg ni tooñ nañ seen borom ngir ñu mën a dellu ginnaaw noonu tamit borom bi joxe ci ay misaal daraba allahu mathalan qaryatan kanat aminata mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adaqaha allahu libas al-ju'i wal xawfi ma kan yasna'un kon réew moo yàlla defal jàmm yàlla defal la xéwal xewal yi di baaw naan réew moomu yàlla ne amoon na ci ci ab réew bu fi jàlloon ab dëkk bu fi jàlloon ñu dem ba bew weddi xewal yàlla yi mu leen defal ah ba mu amee nag yàlla nee na ci la rocc xewal yooyu solal leen yërey xiif ak yërey ci tànge ci sababu bàkkaar yooyu ñu leen def loo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sax ni ah, saa boo xamee ni jaaykat yi dem nañu ba ah, di wàññi seen peesekaay yi ba dootuñu jaayati jaayin bu normal maanaam trafic bi nekk ci wàllu commerce bi jaaratul yoon jëflante doomu aadama yi jaaratul yoon sàmm wante wuñu ak àq yi nee na loolu bu amee rek yàlla subhaanahu wa taala mun na leen e, teg moom borom bi subhaanahu wa taala téye ak ak tawam dem na ba waxaat moom sallallahu alayhi wa alihi wa ni borom alal yi bu ñu génnewul seen as seen alal génn ci àqi miskiin yi génn ci euh, asaka yàlla tamit dafay téye euh, tawam nee na bu du doon bàyyi bàyyi ma yi yàlla du wàcce taw bi bu doon bàyyi ma yi yàlla du wàcce taw bi kon loolu yëpp dafay wane ni bàkkaar yi doomu aadama yi di def ci kaw suuf bàkkaar yooyu dafay mel ni dafay doon ay niir yu teg yu tag ci kaw niir yooyu tag ci kaw daanaka mooy waay mooy xañ doomu adama yi xéwalu asamaan ndox comme ni ko borom bi subhanahu wa waxee rek ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ab dëkk bi réew mi nit ñi bu ñu maase woon ci gëm yàlla ak ragal yàlla jëfe santaane yi bàyyi tere yi yàlla nee na danaa wàcce ci ñoom barkey asamaan ak suuf barkey asamaan ak suuf barkey asamaan mooy ndox mu am barke barkey suuf mooy meññent bu am barke boo xam ne dana jóge ci suuf si ak tamit ressources yi fa nekk nga xam dafay génn an am barke Eh, ci jëfandiku bi kon loolu nag li koy xañ doomu adama yi mooy weddi gi ak tamit ñàkk gëm gi ak mooy yàlla gi kon loolu tamit doomu aadama yi war nañ cee bàyyi xel baax a baax rawatina bàkkaar yu ñaaw yi eh, ndox moomu tamit bokk na ci yi nga xam ne tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunnaal na ko ñu war cee bàyyi xel jamono ju muy waaj a wàcc ak yu muy wàcc mooy jamono joo xam ni ngelaw laa ngi tàmbale mi ngi xiin commencé am ngelaw lu commencé jug muy poussière jamono jamono jooju yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ab ñaan bu mu laan def mooy saa bu gisee ngelaw lu mel noonu danaan ñaan yàlla yàlla may ko yiwu ngelaw loole noonu tamit yàlla may xañ yàlla musal ko ci ay gi nekk ci ngelaw loole daana wax moom allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bi wa min charriha wa charri ma fiha wa yàlla maa ngi lay ñaan yiwu ngelaw li ak yiw gañ ca def ak yiw ga muy indaale maa ngi lay ñaan yow yàlla nga mësal ñu ci ayu ngelaw li ak ay ga ca nekk ak ay gañ ko yóbba gañ ko yóbba yónnaale nga ay ga tax mu jóg kon loolu tamit nit ki war na koy bàyyi xel noonu tamit jamono joo xam ne taw bi tàmbale na sallallahu alayhi wa sallam daana ñaan allahuma sayiban naafia allahuma sayiban naafia allahuma sayiban naafia muy ñetti baat yu gàtt yoo xam ne ëmm na njëriñ yu bari yow yàlla ñu ngi lay ñaan ndox muy sotteeku bu am njariñ yow yàlla ñu ngi lay ñaan taw bu am njariñ wala ndox muy sotteeku mu am njariñ kon loolu jullit bi war na ko di ñaan jamono ji muy taw ngir taw boobu mën a nekk xéwal mën a nekk barke mën a nekk njariñ ci doomu aadama yi noonu tamit euh, bokk na ci ñaan yooyu nit ki war a bàyyi xel jamono ji muy dënnu euh, kenn ci saxaaba yi ridwanullah alayhi muy abdullah ibn zubair euh, daana faral jamono ji xam ne dégg na Euh, dënn bi di riir euh, muy wax subhaana alladi yusabbihu raadu bihamdihi wal malaikatu min xiifatihi di ñaan ñaan googe naan maa ngi sàbbaal euh, ki nga xam ni dënn yi moom lañuy ñuy sàbbaal moo tax muy riir riir gu rëy googe ak malaaka yi wante jamono ji nga koy sàbbaal ñu ngi ànd ak jàq ñoom malaaka yi ak ak dënn gi kon julli bi di ñaan tamit ñaan googu yooyu dana ko musal ci léeg-léeg dënnu yooyu Euh, bañ a wàcc ci moom muy musiba yi nga xam ni moo ciy soqeekoo yàlla mën na ko ci musal kon loolu ñaan yooyu tamit jullit bi war na ko bàyyi xel beneen bi tamit jamono ji taw bi di wàcc jamono jooju jamonoy ñaan la yonente bi sallallahu alayhi wax na ni daawataani laa turad laa turaddaani ñaari ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo bokk na ci ci njëkk mooy euh, jamonoy noddu beneen bi mooy nee na jamono ji taw bi di wàcc kon loolu tamit jullit bi war ko bàyyi xel jamono ju eh, taw bi di wàcc muy ñaan ay soxlaam di ñaanal réew mi di ñaanal askanam loolu tamit lu am solo la bokk na tamit ci yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sunnaal na ko jamonoy taw mooy boole julli yi julli tisbaar tàkkusaan bu fekkee mi ngi taw mi ngi wàcc wala julli géewe ak loolu tamit bokk na ci liñ ci yoonal noonu tamit jamono joo xam ne dem na ba taw bi eh, yéex a wàcc wala yàlla téye ndoxam eh, sunnaal na moom yonente bi sallallahu alayhi wa istiqa استسقاء موي نيانو باو نان ولا صلاه الاستسقاء استسقاء موي جولي باو نان غا خامني نيت كي مون نكو ديف ولا امام بي جامني جمعه مو نيان تالال اي لخوم نيان يالا سبحانه وتعالى غير يالا ماي لن دوخ كوم نيكو صلى الله عليه وسلم ديفه بن بيس لي خطبه با تي رك كين دوغوسي ولا ام بولو دوغوسي نيكو يا رسول الله نيور غاغي دي ني ني خيف نانيو ñaanal yàlla taw bi wàcc ci la yëkkati ay loxoom ba ñu gis pokotaanam mu tàmbale di ñaan di ñaan di ñaan yàlla may ñu ndox yàlla may ñu ndox ndox mi commencé di wàcc noonu la continuer ba une semaine waa ji duggaat ak ñeneen ni ko nag ah, kër yaa ngi màbb bàyyi ma yaa ngi lab nit ñi amatuñu fu ñu jaar ñaanal yàlla yàlla arrêté taw bi ci la wax allahuma xaw alayna wala alayna yàlla taw bi eh, sotti ko ci àll bi totti ko li wër Médine toog sotti ko ci xur yi ak tamit ci gàncax gi ca la wuññeeku ca saase taw ba tàmbale di sotteeku ca la wër Médine kon loolu tamit lu jara a bàyyi xel la ñu xam ne tamit fi ñuy jeexalee mooy taw yàlla moo koy wàcce wa yunazzilu gaytha yàlla mooy wàcce eh, taw te bokk na ci li mu jagoo moom xam moom borom bi subhaanahu wa taala kon xéwal la saa bu wàccee tamit dañ ko delloo ci yàlla dañ ko askane yàlla dañ ko sante yàlla subhaanahu wa taala xam ne ndox bi ndox mi jaamam la moo koy wàccee ci jaamam yi jamono ju mu ko soobee ak nu mu ko soobee moom borom bi subhaanahu wa taala jaam nag amul lu muy ñaan ak yaakaar yàlla kon yàlla na yàlla def at mi muy atum naataange atu xewal yàlla defar nawet bu baax a baax a baax a baax def ko ndox mu sedd ndox mu am xewal ndox mu am barke yàlla defal ñu tawfiq ak mboolem jullit hada wa sallallahu wa sallam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi atbaahi wa salaamu aleykum يفنى ويا أنت وحدك وحدك حي